waaw donc euh, je pense que il faut il faut tey ma am benn exclusivité kii c'est Mafadi son ami frère ah yor fii portail bu mag aussi ci liggéey ci Dakar kenn xamu ko nag dama koy génne c'est la première mais ça se mon c'est mon jumeau c'est Papy Signa Ari Management mosul bëgg a wax fenn nag ah dama ne ko foog nga wax <laughs> Papis donc euh, dajewoon nañ fi ci ay bés yu weesu ma bëggoon nga wax ak gars yi nga ma non damay mais tey nag foog nga wax alors tu es là c'est pour le 4 avril ñëpp jóge Sénégal ñëw di ko féete ci Paris avec Pape yow nag gis nañu la Art Management clip yu Pape Diouf ñu def yëpp macha allah àdduna bi yëpp nangu c'est des réalisations de Alors parle-moi un de la journée, un peu de la personne. j'en ai besoin parce que ndax gis naa making of bi mais nangoo ci wax loolu dafa dafa important waroon nañ la laaj yow ñuy liggéey la personne sa impression ci moom neex na liggéey wala neexuta liggéey ban waaye Bamba maa lay fay encore une fois plus di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan sur euh, filmdakar point com

saa euh, yi mën na ko tuddee retrouvailles mais moi je du ma ko tuddee retrouvailles parce que de Dakar à Paris on se connecte et le plus important pour c'est le travail dans la conscience donc dans l'ombre quoi euh, cette question c'est c'est pertinent mais pense li nga questionné yëpp tu as la réponse parce ensemble on a fait énormément de choses ensemble def nañ lu bëri ak yeneen ak ah, mais réponse bi c'est pour ñi ñuy seetaan ñi tout à <laughs> tout à fait donc bon bis bi bis bu am importance la dans la mesure où euh, dañuy fête suñu canal bi Sénégal yëpp la place contre fête benn dëkk de France c'est important lieu bu symbolique la la donc pour man euh, képp kuy sénégalais rek war nga am taxawaay tey war nga am fierté war nga am euh, war nga am vraiment sañ-sañ taxaw wax si bis boobu ñuy ñaan yàlla na fetu ay at yu bëri di ko at bee di ñëw dem ci 4 avril lépp lu Sénégal réussiroon mu yokk ci côté yëpp ci dans tous les sens quoi bés bu am solo la surtout ñu koy fekk donc tey ñu ñëw bési biir France yëkkati drapeau Sénégal à travers la personne nga xam ne c'est tellement important la l' artiste je la ko waxee bëggoon naa nga wax euh, comme ni am nga réponse parce que ensemble on a travaillé sur tout ça Pape Diouf parce que li nga koy defal moo la koy gën a bëgg et ça c' très rare si artiste donc comme nit koo xam ne ni nga koy defal moo koy gën a bëgg day disponible si côté yëpp dans tous les sens ci moom si sa personne mais financièrement aussi il est disponible donc te man je je dans les délires je dans les rêves kuy ànd ak man si suma tournage vidéo soo melee ni Pape toujours le résultat reste le même mooy c'est parce que le plus important si benn moment il faut changer il faut rajouter un petit plus même su fekkee li ngay def mën na neex di neex mais le plus important c' est essayer d' évoluer essayer de changer te moom comprendre donc artiste bu neex la bon en tout cas moi personnellement dama lay waruma waruma sax féliciter mais dama naan dama lay féliciter parce que euh, peut am na ci euh, yu mujj nga xam ne fekkuma ko lu mel ni euh, Diofior lu mel ni parce que je me rappelle dëgg daaj j'étais là-bas donc mais Diofior bi ak euh, Boundioutou bi Rakkaaju bi tout ça c'était pas là-bas mais vraiment comme ni ma la ko waxee woon c'est c'était un beau travail c'est des idées pertinentes donc euh, loolu yàlla na yokk yàlla na wéy lu ñu tey xam nga ko. c'est pour yokk waar wi tamit am beneen liggéey bu ñu def au niveau de l'Europe ñu ngi euh, du yàgg dara dinañu dinañu dinañu yeneen yi ñooy commencé woon ko yeggali. incha allah surprise la pour Sénégalais yi. voilà voilà ñu que liggéey du rek. mais jëf bi daal moo am importance ak mu sotti. def ko nit ñi parce que nit ñi tax donc c'est un plaisir vraiment. waaw ñu retrouver ici. man aussi maa ngi lay. remercier, mhm. de Parce que très souvent, mhm. une équipe, c'est pas une mhm. Une équipe, c'est des gens. ah nañ peut-être gën a dégg parce que mais mais il n'était pas seul. il y avait toi a toujours toi il a toujours deux des des des frères qui sont derrière. ñooñu aussi ñu xam ko le travail c'est tout un ensemble de personnes. donc on dañuy encore remercier tout le monde ñu xam que ne li ëpp solo rek si liggéey bi mooy mooy. Euh, résultat bi te résultat bi tant que mi ngi baax rek euh, la c'est ça. mais maa ngi lay jaajëfal moo xam xam naa yaa ngi ci liggéey bi. waaw ah c'était juste pour am impression yi. tout à fait kon xam naa ci kanam. ci kanam ok.